Fum dem yak rek la fay nekké mi ngi melni nga ànd ak sa dom yaro ko yobbu ko ci kër jambour mu dem di toj vessel yi toj kasi jambour yi toj tali yi noonu la bakkan mel ci bir jëm ak ruh ndax jëm ak ruh biñu biñu sey bakkan moo ci judd bakkan mom nak mo laaj tarbiya mo laaj taaliya mo laaj teskiya bunu ko defé nañ bëgg mu melni moom dana daal di mën a déggoo ak wayjur wu góor wi nga xam ne moom boo déggee ñu ne kullu mawludin yuladu ala al fitra ala fitratin maanaam ku judd ku ne bi ngay ñëw ci sell nga ñëw kon li taqal sa bakkan fii nga ko taqalee ci dina waaye bi ngay ñëw bakkan bu sell nga indi sa lépp sell fi nga ci télécharger lu ci bokut inna nafsa la amaaratu bisu muy bakkani yeufari fin tol mu nit dana sàggan ba bakkanu bi yeufari dund ci jëmmam muy nafsul amara bisu nit dana sàggan ba bakkanum nafiqi di dund ci jëmmam muy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nit dana sàggan ba bakkanu ku murtat di dund ci jëmmam kuy def loolu bu mu xotti bi rafet na di bu def loolu am na mbuumu ne ci biir moo xam ne léeg-léegi mooy faral di taq xam naa moom nga jaawaleeg bii ci kaw mooy mbuumi may waxtaane nii muy bakkan yi mbuumu jar xotti mbuumu jar summi mbuumu jar sànni mbuumu jar tàggool mbu moo xam ni mën nga koo sol defe ne rafle te fekk rafle nga te mooy bakkan yi ma waxtaane rek maanaam ak xër ak xër la waaye bakkan yi lu mat a sonn la te mën naa sonal doomu aadama lool boo sonnul ci jaarale ko fa nga ko war a jaarale ndax li ko neex rekk la xam te doomu aadama bu ne xeeti bakkan yooyu dañoo ne ci moom boo ci yafal rekk mu doonum kuy muy bëngeem ci sa biir jëmm du la may jàmm te la ko yare woon bu xasee màgg loolu rekk lay laaj bu fekkee danga nga ko yar mu yor bakkan boo xam ne mooy bakkanub yéefar mën ngaa dudd ci dudd judd ci njullit waaye bakkanub yéefar boo ko yoree doo doon ab jullit mais doomi jullit ngay doon boo jëfarluwul mu doon bakkanum naafiq nga juddu ci ak jullit di doomi ñaari jullit waaye dim naafiq la ca gën a bon nag mooy bu mu la tànnaloo ci ñaar ñooñu boo lawoo ma ne ca ginnaawam lawaama moom da ngay def lu bon ba noppi mu won la ne lu bon bonut da lay wax la mal sele le bien maanaam lu bon mooy lu baax kooku mooy nafsul lawaama nafsul mulhima fa alhamaha fujuraha wa taqwaha mooy bakkan bi nga xam ne tey da ngay mel ne wëliyu suba nga mel ne wëyu da ngay toll waxtu yoo xam da ngay tàng jër bëgg ay koor ngatt nga bëgg ay naafilay guddi fonk kurus yar sa bopp bëgg lu baax fu ñu waxee lu lu lu juunu nga jub mbaa nga ne astaghfirullah ca jataay ba ba nit ñi yéemu ci yow ca at mooma wala ca weer woowa ci kii de ni mu sellee loolu fa alhamaha taqwaha boo jubee waaye boo nag fujuuraha loolay bakkan munaafiq yi mooy nashhad annaka la rasulullah walaw yaalamu annaka la rasul walaw yashhadu inna al munafiqin la kadibun waxunu lu am yonent bi lañ janool ne ko yaay yonent bi rek waaye ci seen biir xol yi loola nekku ca kon ñooñu dañuy feeñal ak ngëm ci kaw nëbb kéefar ci biir loolay bakkanum naafiq jullit boo xam ne nag bakkan yi am na ci bu ne ci moom dafa war a jàppee boppam ne ku feebar dem hôpital soxla cardiologue bi ñu natt xol bi xamal ko fu tension tollu mu war a jël ay garab boo gisee nit di wut cheikhul murabbi bakkan yi ku mu dal ni nit ki di feebaree di seeti ophtalmologue ba walla karjaloog ba walla dermatologue ba walla ku mën a doon نونو لا بروم bakkan yu سخلا شيخ المربي نون لا سخلا شيخ المرقي ngir mu tarbiyal ko bakanam ba bo amé nafsul amara bisu muy bakkan bi digle lu bon di bakkanub yéefar ak bakkanum nafiq ak bakkan bo xam dalay murtad lo ba nopi nak lépp lo def mu lu ko boo jógee ca yooya da lay dimbali ba defaral la sa bakkan tëskiye ko xadd aflaxa man dakkaha waaye wa xadd xaaba man defaral bakkan boobu ba mu sell nga am nafsu boo day nek nafsu radiya mardiya ngam tumanina radiya mardiya mutuma inna so baba nak irjaa ila rabbika radiyatan mardiya fadxuli fi abadi wadxuli jannati kon yobuna la ba ngam nafsun kamil cheikhul murabbi bi bu taqoog yow nga taqoog moom te li la taq munta yorut sabu mënta fóot mbayow sa jëmmi bopp jébbale woo ngir ñu tàggaleel ak sa sobe soosu kon li boole taalibe ak sëriñ bi du kaay doon sama alal ma doon ki moom nga di moomeel ci man déedéet du kaay doon sama jaam ma doon sa buur li tax seen maam yi gentaloon ay dëkk di seeti ku tedd ki cheikhul xadim ak cheikh ibrahima fati mooy ku leen nargan ci njubug yàlla ku leen nargan ci njubug yàlla nu demee nag ba xàmmeetuñ ko nu fàtte ko itte jiñ ko war a jox joxuñu ko ko day dem ba sëriñ bi duutu xàmmee taalibe bi waaye taalibe bi duutu xàmmee sëriñ bi su boobaa dañu ne ci guddi goo xam ne mooy raw guddi gu wax set bala ngaa gis rek mu melax te la ngay gis doo ko xàmmee dëgg-dëgg ba xam mooy lan yàlla ñu yàlla musal ci googu lëndëm te ñàkk a tegu ci yoon rek mooy def lii nit ñi defee ay campagne di sensibiliser nit ñi choléra bi cancer bi raxasu leen saabu nangam nangam noonu docteur yi amee jot ci loolu kilifa yépp noonu lañu waree amee jot ci wax ak nit ñi ci ni bakkan di def doomu aadama ak fi mu ko jëmee ni ko bànneex di def ni ko seytaanee def ni ko addunay def te yépp yu ci nekk ay noonu la ci yow moo tax mun boo jàngatee mbindum sëriñ bi te dégg ko nga dégg sëriñ bi ñaan naan wa dammiran kulla aadain tudiru bina xablal wusul lana yàlla yàlla waaw loolu naka nga koy mën a déggee ak yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jamia al yàlla na nga yërëm bindeef yi fee mu ne yàlla nag ma alagal samay noonu nu ñu mën a déggee loolu xanaa noonu suñ tubaay bokkul ci mbindeef yi ba mu ne irham jami al wara wëlbati ko fii ne wa dammiran kulla aadain tudiru bina xabla lu suna yàlla yàlla déedéet sëriñ bi waxut nooni nit wallahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri darar kon kooku wa dammiran jooju jëmut ci nit wa dammiran jooju mi ngi jëm ci nafsul amaara bi suu bakkan boobu ànd ak nit te ko yàqal nafsul lawaama mii ànd ak nit te di ko yàqal nafsul mulhima mii ànd ak nit te di ko yàqal wommat ko jëmee ko ci banneex ak àddina ak seytaan ñoo la Sëriñ Tuubaa defee noonu kon bu ne wa dammiran kulla a'da'in bi naa nga wax ko di jublu ci kër bay diw naan suñuy noon lañ da nga defaroogut bu defaru benn noon ngay am muy sa bakkanu bopp mën de noon bi ma te jàppee noonu mooy ayib ju ne ci man may xool nan laay def ba mu deñ man loolay saam noonu awuma ko sama kenn tamit duma ko ne wutal ma ko nunguma dégg diw dalaa bañ déedéet ndax am na fa boo fa tegoo ku la bañ sax danga naan bañu la daa bañ boppam kon man awuma noonu sama non bi gëna reuy moy sama bakkan bi ndax doom adama man lay gis yàqu nit ñi taw du gis yàquteg bopam nit man lay dox rek for puso nga and ak mom mel yene woko ko for gi mu for puso bi ndax bo sañoon yakoy for lo rek ak la te mi ngi ci yow te boo ko rendiwut mu dee mën na laa rey waaye boo defaree sa bopp nu yàlla def nit mu neex la ci aw yiw lépp lu yàlla mu amut leneen waaye lépp lu dal doomu aadama ci aw yiw ak lu baax da nga ko yéene bu dee safaana sa yitte jëpp mooy yàlla na ko yàlla teggi waxna ne man suma rombe tol sax borom di bay duma ñaan mu nek wërsëg ci mom waaye damay nek ñaan mu nek mur ci mom ndax wërsëg ku ko am am nek bodul fanan ak ku goo dul lekkee ak lal bodul teud waye mur moy ku kudd gi nga ciy lal bi ngay teud kaas bi ngi ciy naanee nga sol ak li ci sarx ba li nga ci def ci yoonu yalla lola ci sa mur li ci des wërsëg la ku wër ba yegsi seug ngeen man foofu laa ne te bu ma sañoon jaami yàlla yépp foofu la ñu ne mooy yéene ñëpp jàmm waaye àddina bi li fi ne ci association yoo xam ne association boo fi gis yàlla beneen bi tas rek mooy yitteem mooy kàddoom mooy politique mooy doxalinam mooy déstabiliser beneen kuréel bi bi aje déstabiliser moy hisbu cheytaan rek mo am ak allah benen kurel amul bi yàlla annoncé ñu xam ko dal moy neena sama kurel fi ne ak kurel cheytaan kon bépp kurel bo xol ba xamne ci kurel seytaane la bok kurel bu jara déstabiliser ngi non waye bépp kurel bo xol nat sa diine sa tawhid nga nat ko sa diggante ak sa borom ak sa ragal yàlla ba mu leer ne la diw mii mënoo ko boole ci kuréelu seytaan bi xamal ni ci kuréelu yàlla la bokk ndéem ci kuréelu yàlla la bokk nag noo def sa bopp na ko ni def waaye noonu sunu waa ji daa jéggi foofu cheikhul xadim irham jami alwara ku koy wax amatoo barrière sa diggante ak jaam ñi jaam ba gën a yàqu ca jaam ña gën caa ñàkk solo suñ tubaa nga koy ñaanal njéggalu yàlla suñ tubaa dëkkalewul kenn sawara lulul bu sañoon sunu borom bala tukkal addinaam ji bindef yépp seen xol yi ngëm yàlla tàbbi ci loolu mooy yittee Sëñ Tuubaa mooy yéeneem moo tax mu ne malikal mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara yàlla man na ko ndax foofee mu waxee alastu bi rabbikum ruux yi na balee moo ne ba ñuy wax balee day am na ci ñu doon sikki sàkk ca alamul arwaax doon sikki sàkk bi ñu wàccee ci àddina ñu jël seen ruu yi nas ko ci seen jëmm yi ñooy ñooy naafiq yi rek am na ñu bañoon yàlla dot leen ñu mujj wax ko ñooñu bañ wàccee fii tamit ñooy yéefar yi rek te moo ne alkaande ja mënoon naa tege foofee ci seen kaw ca saasi ويالدا يكمتي ودار واخنا كو يونتبي انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا لغ لغ مو بغي تي سون مو نكو دارني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا وشهودا كون ووتك واخ رك لكيليفا جي مان سوكو ديفه نك واتينا نيام وو واخ اك نيوم نيو تا ديس فين تولو بوما سوني كو فكه جتاي بي te jaayante ak man wala nga fekkee jataay bi te jaayante woog man daa mel ne waxaale naa sa kilifa kon ku fi jógee ber weneenu yoonam bu mu ne dégguma ko dégg na ko ndax ñi fi ne di waxal yàlla tey wax lu baax ku wax ko ne waxaale nga ak ki noppi li bon mooy ñëpp noppi waaye bu fekkee am na ñuy wax ku wax ko ne waxaale nga ku waroon wax te waxut kon nañ nañ nañ fonk nañ fonk lii nu amut lu dul moom muy sunu taalibe waaye munoo doonub taalibe mukk te doonoo ab jullit ndax murit laytaay ji mu tege muy ak njullit boo doonee jullit di murit nag sàmmal sa lislaam ji sàmm sa taalibe gi boo ko sàmmee defe ne yow rek yaay sa noonu bopp yow rek yaa mën a pose na sa bopp yow rek yaa mën a tooke sa bopp ndax bakkan yooyu nelaw ci sa jëmm ku siis xam nga ko ku soxoor am xam nga ko koo xam ne yaa ngi jëf te sa xol ba tey ngis a ngi ci des xam nga koo xam ne tamit danga jëf te jëf ji ngay jëf da da da koy seedeel bindeef yi xam nga ko kuy jëf te li ngay jëf seedeeloo ko kenn ku dul yàlla mi nga xam ne moom moo bët bu rëy bi te ku jëf ku ne mu fay la kenn ku ne la ne ci yow xam nga ko jàmm bi nag munta xëy xëy sotti waaye day mel ne kuy waas jën saa boo xëy li ayib ci nga jël paaka di ko xoos di ko xoos ndànk-ndànk ba mujj nga set wicc mën a tàbbi ci cin cindi nit ñi mën laa jëfandikoo waaye jën wu kenn waasut neexut a jariñoo te doomu aadama li der bi soxla moo ko gën a yittewoo der bi muy addabuqu wa tanzifu wa tajfiif aw der daa soxla sebej dafa soxla wulli dafa soxla weer waaye lii ñu defar ci ay nag fii tey bu ñu jëloon seen der yi jal ko ci buntu kër yii ñu dëkkal bu fi defee ñaari fan ñett ñu lor waa kër yi li waral loolu mooy maraaxil yi war a jaarale der wi ba mu mën a doon dàll wu ñuy sol mbaab saag bu ñuy jëfandikoo wala der gu ñuy takk der woowu daa jaaragut ci barab yooyu doomu adama nag moo gën a yittewoo der woowu ngir jaar ci barab yooyu der wi jaar doomu aadama ko gën a yittewoo kenn ku nekk. li la të ticc xam nga ko melokaan woo yor ak lépp lu yàqu ci yow xamal nga ko sa bopp moo tax borom mi ne balil insanu ala nafsihi basira yaa gën a xam sa bopp li nga ayib le xam nga ko li nga yàqule xam nga ko muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw moo tax ma xam ni àddina ne fi jël mbindeef ne yow def comme noonu sab dox dana yeex ndax nit ñi niñ lompoñee nit ñi waxuma la ñu noonoo la mais buñ la soppee sax munu maam munuñu laa jariñ ku la sopp laa jariñ lan mooy njariñ da lay tee feebar wala mu tee laa dee nit ñépp boo leen dajale woon ñu sopp la munuñu laa tee dee munuñu laa tee wopp munuñu laa tee tële waaye ginnaaw buñ la soppee munuñu laa jariñ buñ la noonoo ndax mën nañ laa lor kon détail bi gën a ñàkk solo ci àdduna mooy sama noon yi sama sama sama ennemi bi sama yooyu yu tardé noonu cib jullit boo gisee ñu bari avancé wuñ loolu moo leen tardeel su ko defee nag nga daal di wuti sunguf sooy sangoo akub reen diw mi ma romb kay nam may xoolee na ma def yàlla bu dee sama dàll càmmoñ wi réer moo ko jël yàlla bu dee sama bu ko defee nag gars yi wut xaalis nekk ci quartier yi rey la rek ngay gën di dee rek ngay gën di dee rek nañ ñëw ma ko ci bopp bi rek wëlbati ko nii bopp bi rek waaw kon nit day gëm yàlla nit day gëm yàlla yaay yaay sa noonu bopp seetal li nga ayible rek nga def coono yoo mën a sacrifier ñu la na dañ dañ tey tey tey waaye boo boo ko yore def ko ci mbuus mu di la diisal ciw yoon te mun njariñ fa nga jëm waaw del def jéego boo seqi sànni benn rek bala ngaa yegg mu jeex ci mbuus gi nga tàggoog moom man di sama xol kenn du ko seet ëllëg ñu toog ñu ne ay dërëm yi xolam bii moo ci fasal waa ji lu ñaaw lii ëllëg pencum yàlla foofu amu fa problème moom yàlla xam xol yi moo koy xool bu ñëwee sama xol bii bu ko xoolee danaan ay dërëm yi moom moom bu jullee ba def li mu war a def day nelaw bu baax a baax am noonu boo ko amee duutoo nelaw di day jël sa temps yaa ngi xool noo ko fiire wala nooy teggee fiiram waaw boo gëmee ne amoo ko nag yow doo seet luy fiir sax far ndax xanaa ma joggi ci boobu ne kàpp sama tànk rek moom nag fiir jàpp na waaye man jàpp ma ne sax ay fiir am na far jàpp te yooyu waxuma leen sax donga yi waaye am na doomi soxna yoo xam sax yoo leen téye am na ñoo xam ne yooyu leen téye ba ci liggéey Sëñ Tuubaa bii ni mu war a yaatoo nii gën a yaatu lëlu gi rek la te am na ñoo xam ne fii may waxee yow boo leen yeewoon na leen dem leen yaatal liggéeyu sëñ Tuubaa bi ci dëkk sàngam ñu ni yii wóoru dégg naa dañ leen di tooñ naka ngay liggéey sëñ Tuubaa di wax waxi tooñ sañ bi xoolal ma yooyu yu yu yu kii yooyu yu suufe yooyu tooñ mooy la danga koy tooñ kay wala kaay dem dëkk sàngam yii wóoru cat yi yor cinquante butéel di rayoo ko taaxoo ko diwoo ko def yëf ku diwoo sëñ bi looy doyati leneen ndax nit ñi buñ la yaakaaree di wut ci yow yàlla bu ñëwee sa kër fekk ay ay sëriñ di la sangat bu ñu amee fuloo dañoo war a ma tax ci yow lay wut waaw ma fekk la ci keppaar guñ lay sangate wala ma fekk sa keppaar ku ñëw pour sangat la du dellu doyloo yàlla sëñ bi ak am solo te nga gëm ne mbind ma mbind ma wow na rufiatul aqlaam wa jafatu suhuf xalima gi teggi ko na mbind ma fer na dogal ba yàlla noppi na yàlla noppi na malakal mawti du jug mukk ci lu dul ndigal mikayil du jug mukk ci lu dul ndigal ana kan la xalimaam xor ba mën a yëkkati mikayil ci lu dul ndigalul yàlla mu joxe ji wërsëg wala mu yëkkati malakal mawti mu war a rey ci lu dul ndigalal yàlla te bari na kër yu tas yoo xam ne fii may waxe yow dañuy wax ne diw a rey diw moo ko lekk wala moo ko liggéey la wax liggéey seytaan la ndax nun ñëpp gëm nañ di ba ci ibaadu yi di coow ci rajo yëpp gëm nañ ne seytaane day dugg ci biir nit di wax ci jëmmam waaw seytaan daa gën a ay yàlla moom seytaane day dugg ci biir nit di wax ci jëmmam loolu la ñu wax yàlla moom tëlee na loolu moom moo tax mu tasawi di wax ne alsinatul xalaayiqi aqlaamul xaqi léegi-léegi làmmiñi bindee fi yàlla da koy def pilim di ci bind lu ko neex ñi jamañ nag mooy ñi defee ne bi fi yonent bi jógee ku mel ne sëñ Touba mënut a ñëwaat sëñ Touba outsider la mooy kuñ sóoraalewul woon waaw waaw waaw outsider la ndax fekk na nubu wax mu nañ ko Cheikh Abdul Xaadir Jilaani mooy na xatmu na wilaaya keneen du ñëw Cheikh Ahmada Tidiane ñëwaat na xatmu na wilaaya keneen du ñëw Cheikh Ahmada Tidiane bi ñu ko ne lu tax nga ne da yaa xatmu wilaaya te Cheikh Abdul Xaadir na xatmu na wilaaya mu ne déet moom daa xatmu wilaaya ak ñam jamonoon teel waaye man maa xatmu li desaat ci wilaaya kuy tëbbooti maa la tëbb fekk na sëñ Tuubaa ñu ngi ko dencal garatu xadimiya garaatu xadimiya ba yonent bi di nekk mbóot fu mu masane bu deb tàngala garaatu xadimiya boobu mooy mbuus gi ñu koy laxasee tàngal bu ne mbuus gi koy laxas bu fekkee ne yonti fu mas a ne di mbóot di xaa di al almaxduumu cheikhul xadima ne ci pegg bi di xaadimu yonti bi mooy nekk maxduum cheikhul xadim di alxadim munsul azal waaw wala munsu il azal ila al abad wa abad abadil abad kon nag Cheikh Ahmad Dam yi dañ koy jox teraanga mooy jox ko micro bi ndax dane ma dama bëgg a ñëw dundal sama ruux ñu bernde ma ci wàllu ruux ndax ñëw ma màggal si rek pour ñu bernde ma ci wàllu biir waaye damaa bëgg a ci sama ruux waaw kon moom dégg na cant gi sëñ bi woote waaw te nit ñi wàcce leen seeni barab wàññiwul dara dafa ñëw jox ma ab al alquran ma ko da ngay fay ci wat bor rek ndax señ Tuubaa dafa jëlon tafsirul jalalain jox ko mamam. Mam Abdullahi Nias. mu sant euh sunu bàyyi Khalif. ñas ne ko ñëwal defal ma ay bay ci cheikhul qadim gërëmal mako ci téré bi mu ma jox waaye ca biir bayit ya ma ngay wax nag téere bii sëñ jox ko addiya moom mi ngi seede ne sëñ Tuubaa sax mooy téere bi loolu nag boo dee ci waxi Seydina Ali nii day day day day wax ci nit tax taxsab annaka jurmun saxiir wa fii ka intawal aalamul akbar mu ne doomu aadama dafa teg boppam benn germe bu ndaw waaye bu mu fàtte ne addina ji gën a rëy ci àddina ji mooy nit boo demee ba ci biir Seydina Ali day wax sax naan mooy mu mubiin nit waaye yooyu yëpp ay déggin lay laaj nit li ci ne ciy paas ak li ci ne ci ay verset ak li ci ne ci ay phrase ak i nangam nit a nit a jafee mokkal moo tax mu ne sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu lxaq waaw te loolu shahadatu lxaqi fi lxalqi waaw waaw waaw xaaruma jox asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ne tur ak saw sant di jiital ci nuyu ak ziyaar bi Cheikh Haydara Mbàkke Baay Mukarramu ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaare ndax lii wax dëgg yàlla sant yàlla bu baax a baax man wax naa ko dama ne ko dama ñëw ci màggal gi waaye ñëw ma pour ñu berndeel ma rekk ci lekk ak naan moo tax bu ma ñëwee sa mbokk yi naan bernde yi ma ne man bernde wu naa ba pare li ma fi mooy ma bernde sama ruu ndax sama maam maam Khalifa Niass radiallahu anhu wala maam Abdoulaye Niass mook maam Mor Jaara ñëw mu wëllarante woon ca Bàmba Moodu na ku mu njëkk faatu morom ki na morom ki ñëw si raw doom jàngal ku ñeent fukki yaas rek benn yàlla dogal maam Mor Diarra njëkk wàcc a wàcc 1921 1922 maam Alaaji wàcc léegi nag booba maam Alaaji jëm na mag waaye mu yebal doomu maam Khalifa bi mu ñëwee mu wuutu ko ci lool mu ne ko nag boo demee na nga jaar ci sëriñ Touba bi mu fa jaaree yóbbante sëriñ Touba am lu mu ko wax ñu waxante ñoom ñaar bi ñu kii ñu demati ba si biir Serigne Touba di amaat benn taalibe moo xam da kaa gëj gis lool. ñu koy Masamba Seen ca euh, euh, dëkk bi ci jo ci Bawol bi la dëkk mooy ndànk seen mu ne ko Masamba de gëj naa laa gis mu ne ko man dem maa nga ca Saalum ca góor gi Abdoulaye Niass mu ne ko booy demat naa yëkk bi muy dem mu yëkk tafsiru jëlaalee ni jokk ne ko boo demee nga joxal ma ko mais dina neex yàlla mais dina naqari seytaane bi mu ko ko joxee maam khalifa maam alaaji woo ko ne ko damaa bëgg nga taggal ma sëriñ Touba ngir teraanga ji rafet ji mu def yëkkati kaamil alxuraan jox ma maam xalifa bind xasiir naag aska zalamin ka tax mi bi raay yennu bu annaawi zaala raay bi raay aska zalamin ka rii miski nafaatoo mu xattiral bi nawaay seyxi fawaay dem na ba ne sëriñ Touba seyxun taqiyun naqiyun aylamul alam fama sanaa bi mutri yu am daay comme li suñu ay dara nekk rek nekk sëriñ boo xam dafa ragal yàlla ba pare xam ba pare di xamle ndax mbir mi boo ko xamul mënoo koo xamle waaw ndax faaxiru shay laa yoxte nit lu mu amul mënu koo joxe léegi nag mu yëkkati kaamil boobu jokk dem na ba naan ko tafsiru jëlaalee ni huwal jëlaalaani tafsiru li man siba mis baawul ilmin ka daw i subhi la maay mis baaw boobu nag xam naa moom lañu teg sa sa loxo boobu mis baawu boobu la sëñ Tuubaa teg sa loxo bi mis baawu xel min kat dawi suppi lammaay ngay leeral xoli jaam yépp kon yàlla na fi yàlla yàggal lool te ànd ak wér kon nag damaa ñëw pour nga euh, euh, euh, bernde bernde bi moom kontaan naa ci ndax maam xalifa bi mu demee ba ci xabru Cheikhu Tidiane Cheikhu Tidiane di ko bëgg mu ne ko déedéet xiraaye kuusu maabatu utiraat ala kulli majzubi wa tadaariki waaw man dama bëgg nga berndeel ma leneen lu dul lekk ak naan kon ñu ngi sant baax di leen gërëm di ñaan yàlla jotaay bi yàlla na ko yàlla nangu ci barke Seydina Muhammad sëriñ bi yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te mu ànd ak wér ak mbooleem njabootam ak ay rakkam ak mbooleem ay taalibeem ak ay suyooxam wa axiru daxwa nina an alhamdulilah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ bi ñas jërëjëf tabaarakallah waaw ah, lii mooy diine ji rek lii mooy diine ji am na ñoo xam ne nag tariqa xijaab la ci ñoom. am na ñoo xam ne murit lañ dañoo xam ne duñ duñ siyaare tijaan am na tijaan yoo xam ne sax dañoo boo jëlee wér du tijaan doo siyaare ji keneen loolu waaw <laughs> <laughs> loolu gàtt na lool loolu gàtt gàtt na lool gàtt na lool waaw kon nag lii mu def moom mbégte lañ ci am mu rëy ndax buntu kër yi niñ baree ci Tuuba mu tànn bi ba noppi sax jaarul ci man waaye kenn ci sama njaboot lay woone ko màggal gi dama bëgg a ñëw sëñ ay dara samay bis lu mu ci yëg géejawaay ak fu ne waaw te loolu ak mbaax la mu mu jima ko te mënoon na ne booba ak léegi sëñ ay dara tànkam sama sama kër wala sama barab waaw waaye mu doon bor boo xam yàlla ngi ñaan yàlla mu jàppale ñu ci ba noonu li nga nu defal nu Euh, nu nu defal la ko sant nañ ci yàlla bu baax euh, bég ci bu baax jox leen seen wàccuwaay ndax it dañoo bokk tool bi waaw di bay euh, maa ëpp lu ma bay amut solo waaye kenn ku ne na def lu mu weesu mu set rek waaw waaw ndax maa tàmbalee fee bi fii daanak amut solo li gën a am solo mooy nga ne lu ma weesu dana set waaw te loolu mooy mbay mu rafet yàlla na yàlla jàppale ñu ci loolu bu baax a baax njaboot gi tawit suñ boroom defal leen pajug aajo yàlla sàmm leen yàlla aar leen yàlla jubal leen jubale leen yàlla yokk seen wërsëg yokk seeni xéewal ak seen sutura àdduna ak alaxira yàlla fanqal leen mépp ndog walla mépp ndab ci àddina lépp lu mën a yàqal doomu aadama moo xam ayu kaw la wala suuf wala buy jógee ci charq wala xarb wala simal wala janub fu ay mën a jóge rek yàlla na ko yàlla gàttandu ba noppi sànni ko fu dul yàqee dara waaw sànnee ci géej gi sax ay mbindaa fana waaye yàlla ci boppam sàkk na foo xam ne bu fa sànnee ay wa ay wa du fa yàq dara mu sànni ko foofe waaw suñ borom defal nu jàmm yàggalal fi Cheikh Mouhamadul Muntaqa ak i rakkam ak njaboot Sëñ Tuubaa gépp yàggal fi Cheikh Mouhamadul Bachir ak i rakkam ak doomam ak njabootu Cheikh Ibra Fati gépp yàggal fi xulafaa yi ne ci Sénégal yëpp te defal leen jàmm defal leen wér yàggale seen daawa yàlla dimbali leen ba taalibe yi déggal leen bañ mën leen a wàmmat yóbbu leen seen boroom fii nu toll ni jataay bi mel boo boo yewul rek dangay ngay daal defe ne lii lu bees la fekk na lii mooy cosaanul yoon wi yoon wi lii lii lii la lii waaw lii quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi mooy lii waxtaan ak nit ñi seen borom ak awale leen ca yoon ba loolu rek la dañuy dem ba yàgg nag nu jàppee ko leneen fekk li ko jàppee du ko xam nga dafa am benn taalibe bu masa ñëw ci man ne daa bëgg a jébbalu ci man jaayanteek ak man majeur na am na soxna ah fu majeur am soxna même booy dugg ci lislaam duñ leen a demal nga tàggoo ji <laughs> ndax am na ñoo xam ne ci lislaam ñoo rey seeni baay di <laughs> dañoo ñëw féete jotu gent bi seeni baay féete jawet gële am na baay yoo xam ne ñëw ñoo rey seeni doom ci bokk ci am ci ñii rey nañ ñoo am ay bàyyi lañ ci ñoom ñii rey ñoom ay doom lañ ci ñoom pos posé leen tàggale bi mu ñëwee ne day jaayante ak man daal di jaayante baay bi jekki-jekki moom it yëg ko loola neexu ko ñaar lañ waaye ki may wax nii nag moo gën a mag daal dem na ko lu tax nga jébbalu sëñ Aydara te yow ma joxoon la sëñ diw mu ne ko sëñ Aydara eh, eh, eh, sëñ diw yaa ma jàppoon ci loxo yóbbuma fa sa dara nag maa toog di ko xool ba mu doy ma ma yóbbu fa saa bopp du benn fee fa yóbbu waaye fii maa fi yóbbu saa bopp baay bi ne ko lu tax nga def loolu mu ne ko bëgg ma yóbboo foofee teewul daan naa demaat foo yëgut daan naa dem ci baar bi te yëgoo ko kag ma yóbboon yëgu ko baar boobee ma doon dem sa yey dara ma tàggaleeg moom moo tax ma dem sa dara baay ba àllu ci kawam waaj a jàll ba ci yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen sax waaw mu ji rek ñu di koy far libéré bàyyi ko ci loolu ndax loolay dëgg sa sëriñu baay ak sa sëriñ du benn bu sa sëriñu baay nekkee sa sëriñu baay ba noppi ne sa sëriñ koo ko sëriñ la waaye mën naa nekk sa sëriñu baay te du nekk sa sëriñ defar taqoo la laaj koo taqoolu du la digal du la tere doo ko gis doo ko dégg boko nuyo jox ko sa di dem ba la gisat at du la laaj dara ci yalla do ko laaj dara ci yalla du ngeen waxante dara ci yalla koku ci lu ngeen ne lolo la nu bolé budu lolo yi ci dess yeb ñeubali adala la kër diw la bok diko diko pukere wo lo amé kër diw bu dem bu mu rafet boy genn fi di gis woyu wu la dàq bu dee kër gu rafet booy génn fi gis kàccoor bu la gën a rafet kër bu dee xaalis bu bari saay saay la gën a bari xaalis kon li la yóbbu kër diw war ngaa xam lu mu sëñ bi xanaa doo fi ne rek naan baa toppee sañ diw ak léegi baax na de ndax léegi am naa oto am naa kër am naa déedéet du loolu du loolu ndax saay saay yu topp sëñ diw ñu ngi koy am waaw waaw leneen kon nag farlu leen rek cëru ci cer na fàtti laa féete ba noppi nag ne ci leneen wala nga ñàkk jom wala nga ñàkk fayda wala nga jubadi walla sa jikko yàqu ah tooñ nga Cheikh Ibra Faty Cerno moom Tuubaa gii may waxee sax ku ko yeb niwu fi daaru mu tigee mu dëkk ku ko yeb niwu fa dëkk yee dend ak daaru ku kenn ku dend ak daaru ku yeb Cerno mu amut te Cerno kenn yebu ko kenn yebu bi fi sëñ bi bàyyi ko tamit moo jël yoon wi teg ko ci teg ko ci aw yoon ne nii rëddal ko suñu Modou Moussa ne ko doxeel nii tëraliinam woowee mooy dox ba tey jii bi fi sëñ Touba jógee dem ci géej gi tamit ku fi nekk ci yoon wi addi joo masa dajale yéen nga ko Cheikh Ibra ba ci Cheikh Adama géej mi nga xam ni ci njëkk jaayante bi mu fi jógee borom daaroo ko taxaw ndax moom wàcc deb liggéey lu jiitu sëñ Tuubaa jógee ci géej ki mën a taxawu Cheikh Adama gay ginnaaw sëñ kon nag bokk ci njabootu Cheikh Ibra Faty topp sa bakkan baa nga ne ci lu neex ah ya ne ca loola de waaye ceerno nekkul ci lool kon nag nañ farlu way deng Don' ay murid yu yiw yu correct yu civilisé yu bëgg sun bopp yu nangoo jaamu yàlla nangoo jàng alquran nangoo nawaafil nangoo liggéey kër guñ nekk buñ xaar ko yor nañ jéem a liggéey yor ña fa ne waaw nañ doon ay mbaam sëf ay mbaam sëf waaw nañ sëfoo aajo nit ñi ak yitte nit ñi di yóbbaale nit ñi rek àddina diir su gàtt la sëñ bi benn laxsa la rek dund gi fii benn laxsa la booy xool ci say doom da xam ne àdduna benn laxsa la sa bu sa dom commencé mën daw di la song sa yaram da wara daw señ bi ku jógee ci mën yu bay daw di songé ngay dox dem di la woo nga koy wuyu nga jógee ci ben tokku mën yu yalla jëlé la fofé nga jógee ci alamul aslabi mu jëlé la fa ñëwalee ci alamul arhami nga jógee ci alamul arhami mu indi la ci alamu dunia bi di nasul. bala yag mu yobul alamul barzakh nga jógee aalamul barsak mu yóbbu la aalamul baas nga jógee baas mu yóbbu la aalamul xuluut monde yëpp di ko traversé te lu ko jiitu jaaroon nga ci aalamul asbahi yi jaar alamu aalamu turaabi jaar aalamu zarra doog nga ñëw ci aalamul aslaabi yaxruju min bayni sulbi wa taraayib booba yaa ngi seen diggul bàyyi di fay ci biir ndox te moo ne bu la sa baay joxee sa ndey sa ndey denc la neuf mois su la génnewaatee buñ la dugalee ci panum ndox nga dee te pourtant bi nga ne sa ndiggul baa yaa ngi daw ci biir ndox waa lim yooyu xoolal loolu àddina sëñ bi moo tax may wax ne dee sa amut intixaal rek moo am tuxu ndax àdduna yëpp danga fa jaar di tuxu di tuxu pour nga tuxu nag sëy bii amoon ci diggante jëmm ak ruu sëy bay tas bu sëy bi tasee jëmm fu mu jëm nature suuf la jóge woon moo tax suul gars yi dañu ko defe lu garaw garawut di suuf du lekk kenn lekk kenn di ndax <laughs> li ñu ne da koo lekk lekk ko foofu mooy tabiyaam mooy natiiram dafay dellu waaw saru fu mu jógee woon malakut day dellu sëy bi tas léegi nag nga def nag bay bay na xaw say ni entre parenthèse mooy diggante ëddina ak dee nga daal di dee ñu defal la entre parenthèse nag diggante dee ak dekki foofu mooy barzaq boo dee rek kite nga monde matériel bii moom muy monde matière léegi yaa ngi dund dund waa barzaq laaj yi lay laaj ci bàmmeel ak ña ngay waxal ak yépp loolu mbirum barzaq entre parenthèse la kon àddina mooy porte avant bi biir néeg bi mooy barzaq buntub ginnaaw ba mooy baas mooy dekk fa ngay jaar pour mën a dem pénc ma yàlla atte suñu attee ba noppi aalamul xuluut foofa la nekkaat xuluut nag ñaar la dafa am xuluut boo xam ne ajjana la ak xuluut boo xam ne sawara la bii xaalidiina fiihaa la bii xaalidiina fiihaa la foofu mooy aalamul xuluuti ilaa ma sha allah ba ba mu neex yàlla rek ndax yàlla kenn péegun mbiram boo seetee awaalim yi nit jaar nga xam ne yow fàtte nga bu yàgg a yàgg ba yàllay woote naa ndax du ma seen boroom yow fàtte nga ba ngay tontu ca alamul arwaax bi yàlla naan ndax duma seen borom yow bokkoon nga ci ñi waxu aha waaye fàtte ko li tax nga fàtte ko mooy fi nga jaar a bari danga faa jógee ñëwaat ci suuf si ñëw ñëw alamu dara dégg nga doo ko jógee foofu ñëw ci sa ndiggal baay jógee fa ñëw ci naqub sa yaay dafa neuf mois waat fa doo ko ñëw àddina commencé nag léegi di jàng fii dox ak raam ak lu ne yooyu nga jaar ci mu fàtte loola balee ju jëkk jële ca alamul arwaax yi fàtte ko gis nga kon ay intiqaal la rek ay tuxu la doomaadama day tux léegi nag àddina boo ko jàppee nii ngay xool sa doom nii muy daw nekkoon toq mën nii ak ba mu ko doon a gut sax ruuxam yàlla mën na ko wàcc xobi garab yi ruuxam yàlla mën na ko wàcc xobi garab yi waaye ku xam koy xam xob bi day jekki-jekki dagg rot ci suuf xob wi day jékki-jékki dagg rot ci suuf dagg ci suuf am xar jaar fi mbaaw bi lekk xob bi boroom béy wi jàpp béy wi génne ko jaay ko abib abib togg ko ca palaasam nga ñëw lakk lu ci dix mille reer ci yàlla def ko deret ci saw yaram nga dox ba yàgg yàlla defaat ko mën mu nekk saw yaram xoola fi yàlla di tuxalee lu ko soob nga ànd ak soxna si léegi bu neexee yàlla doom juddi ci sëriñ bi nee na moom tàngal la bu neex bu dul jeex daal yàlla crème bu neex a neex boo xam ne du jeex ku ngàññeen ngaañ du jeex mukk buñ fi nekkoon fii ba cinq kenn kuy wax doy na amut du doy kon nañ kii rek waa waañ bi buñ génnee ci baas bi nañ summi yére yi duggaat ci waañ bi toggaat bernde yi berndewaat gaa yi waaw berndewaat gan ñi Cheikh Aïdara Mbacké yàlla fi yàgg